ci turu xadara bi nu bàyyi ko muy Njaasaan ci turu Cheikh Sidi Ahmadul Bekkaay ibnu Cheikh al Bekkaay ibnu Cheikh Abu Muhammad ibnu Cheikh al Bunaama mi xalifatul aam li tariqati al xaadiriyati al bukaaiyati al muxtaariyati al bunaamiya nuyu leen ci turu sëtam yu tedd yi ma àndal te ki ci njëkk di sëriñ Sidi Kunta ibnu sëriñ Muhammad Kunta ibnu Cheikh Seydi El Hadji Mamboul du Hadj Muhammad ibnu cheikh abou mouhamad ibnu cheikh albunaama feggoog rakkam imam mouhamad bekkaay mu cheikh sidi yahya mu imam mouhamad bekkaay mu cheikh al bekkaay mu cheikh bu mu cheikh albunaama kàddu yi du gudd ndax nag lépp daf fi xajul waaye lenn ñu indi mooy indi yóbbante soxna Astu bintu Cheikh Seydil Hadji Mamoun ñu ngi nuyu nawley diine yépp te nag yàlla ñu ko wax nee na nanu ci buumam gi te bañ di teqalikoo borom njaasaan mii maamam loolu la wax looloo ñu fi indi sama sëriñ nee na muridan akun abidan wa naasikan mustamsikan bi qablillahi ilbaani fala tumayidan wala tufarriqan ibada rabbi alxalqi wal akwaani man qaala laa ilaha illa allah fa kun lahu awnan bil istixzaan soxna astu loolu la dégg loolaa waral digganteem ak Cheikh Ahmad tasrif mu nit ku ne xam na yaayam jigéen na àddina muy soxna ami Mbàkke bintu Cheikh Mamadou Moustapha Al Amin ma nga Tuubaa di jaabante fan yi yëpp ñoo fa bokk nekk loolu rek kay ngàntam waaye mu yabal ñu ni moo fi waroon a jiitu loolu rek mooy tànk yi daa di jël ñetti dërëm yi mu yor barkeeloo ko ci bis bi loolu rek mooy kàddu yi nga xamante ni moom la ñu doon wax mu teg ko ci loxoom sëriñ euh, Sidi mu wax ni Cheikh Ahmad Tasrif amul sa pay ci boole bi nga boole diine ji man mi mu yónni bi ma ñëwee bi ma duggee ci saal bi rek laa am fierté mooy sunu xol sedd na guy li nu bëgg def du fi xaj waaye yóbbante soxna ay as boobu remplacé na li ñu waroon a def mu ni dimbali ma mu ni nag kii waaw kay moo ko teg ci sa loxo fa tabarakallahu nga barkeeloo ko ci bis bi wax la taggal yonent bi te defoo ko moom musiba la taggal yonent bi te defoo ko musiba la ngeen baal ma rek benn kàddu bii ngeen di dégg mooy bàkku njaasaan ñi fi toog ñëpp wala rey soxna astu lanu jarul may lim waaye waxoon na su ma ñëwee naa tudd sëriñ Moustapha al mu yóbbaale ñëpp géew ak soxna si di ji di xaritam bii toog fa tabarakallahu soxna astu mu ngi leen di nuyu teg nuyoom ci seen loxo ndax mën ngeen ko yóbbaale géew ndax alaaji Maalik Gay sama سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله bàkk ku dem Njaasaan moom rek ngay dégg suñ ñu ko waxee te waxuñu benn baat dafay mel ni dara la looloo tax ma wax kàddu googu xasbiyallaahu li diini xasbiyallaahu li duniyaaya xasbiyallaahu li man baxa alayya xasbiyallaahu li man salamani حسبي الله عند الموت حسبي الله عند البحث حسبي الله عند الصراط حسبي الله عند الحوض حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله waaw kon kon ñu jox parrain yi léegi léegi nag léegi nanu déglu nanu déglu Papa Youssoufa Diop Papa Youssoufa Diop mii xam ngeen ni parrain bi mooy Serigne Mayib Sougou nag jiite na Seex Seydi El Hadji Malick nekkoon Tiwaawan waaye papa Youssoufa mii sët la ci Serigne Mayib bi muy ñëw mbooloo mu bëree bëri lañu àndal ñii jóge Tiwaawan ñii jóge ci biir Ndakaaru ñii jóge ci biir réew mi léegi nag faw ñu déglu leen moom mi nag ku ne xam ne digganteem ak sëñ Babacar Sy xalif général de Tidja. Modou ma ca ba. wala wala ci Mamadou ma ca gànnaaw ba. Alaaji Mansour mooy baay sëñ bay man. imaaman fil wara wal wara wal wara wal wara Mamadou Mansour. Alaaji Mansour mooy baay الحمد لله الجامع المعطي النافع ذي الفضل والكرم الواسع القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً wa salawaatuhu wa salaamaatuhu ala alfaatixi alxaatim sayyidina wa mawlaana muhammadin alqaa'ili fi jawaamici kalimihi man araada an yunsa'a lahu fi atharihi ay fi ajalihi wa yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahima salli llahumma alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaa'ihi wa man ihtada bi hadyihi waqtafa atharahu wa sunnatahu ila yawmi ddin jaalana allahu minhum bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara nuyoo ak ziyaara bu jaar ci suñu làmmiñ jóge ci suñuy kilifa ñoom it ñu jële ko ci seeni kilifa kilifa yi may wax mooy suñu maam ji nga xam ni moom lañu tudd di suñu maam Mayib Sougou al imaam rahimahullahu wa radiya njabootam gi fi ne ci kaw suuf ki yàlla dogal mu mag ci ci góor ñi mooy suñu ndijaay Abdul Aziz Ngom di imaam ca HLM 2 mooy imaamu ratib ca HLM 2 ca jumaa ja ki fi mag ci jigéen ñi ñi fi des ci njabootam mooy suñu yaay soxna naar sugu ñu yebal ñu ci ndigalu ak ñaanu seen sëriñ di suñu sëriñ di suñu kilifa di sayidi abou bakar mouhamadunil mansour mi nga xam ni bi nga xam ni démb walla bi nga xamante bi mi may ñaanal may ñëw fii dani ma woon woote bu rëy lañ leen woo bu ngeen di dem ku ngeen mën a yóbbaale ci bokk yi na ngeen ko yóbbaale ndax suñu maam ju baax dafa wax ni di sama turaloo mu ni muus ak bari pexe àggul ci fàggu fa ngay juddoo pexe yeggul ci fàggu fa ngay juddoo muus yeggul ci loolu nit ku nekk fa ngay juddoo yàlla la koy fexeel kon loolu li muy wund mooy kenn ku nekk say bokk yàlla la koy wuutal bokkuk deret yàlla koy wuutal boppam moo tax ñu ni kon muusit ak bari pexe àggul ci wuutal sa bopp lu gën li la yàlla wutal moo tax ba sëy ahmadu tasrif yàlla na yàlla dolle guddal fanam guddal fanu suñu wayjur wi nga xamante ni bii moo nekk tey ci di xalifa maam jéeri Wadaan di Baye Makhtar Sougou ñuy jaar ci moom di nuyuwaale nag suñu ndijaay ji nga xamante ni bii mooy suñu ndijaay Bamba Sougou mbooleem at yi weesu yépp man yàlla xam na ni Wadaan moom laa ci njëkk a xam muy koo xamante ni bii jokkalekat bu mag la diggante waadaan ak kër Mawlana Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu ñu di ko beral nuyoom ak ziyaaram sëriñ mbokk yi suñu baay Abdoul Aziz Ngom di suñu ndijaay ak suñu ndey soxna naar sug ñi nga xam ni ñoo mag tey ci njabootu maam mayib maam mayib sugu mii ñuy wax nga xam ni moo nekkoon moom la maam moo nekkoon imaam ci jàkka Mawlana Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu am na ku ma dégg léegi mu ni fanweeri at waaye ñeent fukki at la du fanweer kese ñeent fukk la diirub li fi Cheikh El Hadj Malick nekk ba li muy génn àdduna ak lenn ci dundu Serigne Babacar Sy am na sax ay jamono ay bokk doon dox tànki gannaaw demu Seydi El Hadj Malick anhu ñu jëlee ko fa teg fa keneen. waaye sëriñ Babacar si lam ca tontu woon ba tey tontu laa ngi fi nit ñi di ko fàttaliku mu ni sampub Sidi Hadji Malick Babacar du seet nu mu mel day sotti ndox mu gën a dëgër ñu teg fa noonu la fa nekkee lu mat ñeent fukki at nekk imaam ci zaawiya Mawlana Cheikh El Hadji Malick radiyallahu anhu maam Mayib Sugu moomu nag ak maam Jéeri Wadaat mi nga xam ni ay journée culturelle lañuy dundal nii sëtëm bu baax bii di sëriñ ahmadu tasrif di ko def maam jéeréeg maam mayib sama maam ndax man maam mayib moo jur soxna aminte sugu aminte sugu jur soxna maringoom maringoom jur mooy sama maam maam maam maam jéeri maam mayib sugu moom mii ndey ñaar ñu bokk ndey ak baay kii di góor kii di jigéen ku góor kee jur mayib ku jigéen ki moo jur sëriñ jéeri guy kodd samba ak tagat ak tagat koddu samba guy koddu samba jub mayib sugu tagat koddu sàmba moo jur mam mam jéeri waddaan looloo tax bi ahmadu yëkkatee lu rëy li famille bi yépp mobilisé wu benn roq desu ci ñun ñi ñëw teewal si suñuy kilifa yooyu ki ci suñu mag ci jigéen mooy soxna Umu Jaw mi ngi nii toog ki nga xamante ni moo ci mag ci góor ñi wóotu ñépp di suñu sang ndax suñu maam suñu ndijaay Mansour Sougou moo ko jur ma nga ne toog mooy Mayib Sougou mu tudde ko suñu maam Mayib dippee ko ko moo tax bi ñuy dugg ci fii ci King Fahd ma ne ko Mayib jiitul ndax fii kat yaay yaay yaay boroom bis bi kon yaay suñu njaatige tey fa tabaarakallaahu kilifa yi rafetlu lool initiative bu Serigne Ahmadou Tasrif te bokk googu yaatu moo tax ba li ngeen dégg ci njabootu Sidi Hadji ñëw fii ci di ñu sant si ñooñu ñépp njabootu Sidi Hadji Malick la moo jur seeni baay waaye sëtu sëriñ Jéeri lañu sëriñ sëriñ may Sugu lañu ndax sëriñ Moustapha ngi Serigne Abdoul Aziz a ngi nii bu Cerno Saïdou Nour soxna Ayda Sey ngi nii sama gannaaw bu Soxna Saïdou Nour soxna Umu Kulsum a ngi fii bu soxna Saidu Nuur ñoom ñu ñëpp seen ba seen ni seen yaay maam jéeri waa daanay maamam maam maam maam di muy maam mayib maam mayib sugu mooy seen maam kon maam jéeri waa daanay maamam ñoom ñëpp ñu ànd ñëw fekk fi suñu ndey nag suñu ndey lax ndax kooku moom doomu walla sëtu Serigne jéeri waa daan direct la muy soxna Roqaya Ñas mi ngi nii toog di suñu doomu di suñu soxna kilifa di suñu baay di sëriñ maam Ousmane si bu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz radiyallahu an doomu mi ngi nii moom laa teg nii ci sama wet mu tudde ko sëriñ Maodo si mi ngi nii toog di doomu soxna Roqaya Ñas ak sëriñ maam Ousmane fa tabaarakallaahu ñu fekk fi ba tey suñu jigéen soxna Karo si mi ngeen di wax ndax ñoo bokk baay suñu baay Abdoul Aziz si bu maam Maas si bu maam moo bu maam Abdou Binta bu maam Maxtaar Penda mooy baayam ñu ñëw fekk ko fi fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin bokk yi lim délégation bi ñu ci ñëw délégation bi ni mu toll noonu dama tànn ay benn benn ca ña nekk ca biir lim leen ndax wax nañu léegi ni waxtu wi li nga xamante ni moo ci des bariwul waaye ngeen yëg ni li ma wax rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yàlla na ngeen nee na ak bokk maa ko doxale ci seeni diggante waaye na ngeen yëg ni doxalewuma ko ci seen diggante rocc ci sama loxo dama topp ci seen gannaaw di leen surveiller inna allaha kaana aleykum raqiba kenn ku ci nekk la mu ci def na ko xam te téye ko gën jaa rafeti téyewin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ma leen wax ci xadis boobu wax ni am na loo xamante ni bii ku ko deful ngir yàlla war koo def ngir ñaar yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gi bëgg nga yàlla guddawul saw fan du ca yem xanaa yaatal sa wërsëg na jokk ak bokkam loolu nag mooy li nga xamante ni bi moom la sëriñ Ahmadu yëkkati ñëw gi ñu ñëw ñëw wan ko ni ko yëg nga yëg nañu li nga def mënuñu laa fay waaye ñu lay booleek yàlla subhaanahu wa mi fonk fonkulu ak bokk nga dundal ko ci gii anam yàlla na la yàlla dundalal sa lépp yow it bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam na nga yëg ni say kilifa yi nga xamante ni bii ñu yebal tàmbalee ko ci sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour jaar ci sëriñ Abdoul Aziz Ngom jaar ci suñu yaay naar sugu ak ñun ñi nga xamante ni bi ñoo ñëw fii te mënuma lim ñëpp fa tabarakallahu ñëpp kontaan nañ ci yow yàlla na yàlla dollee féq sa fan yàlla na la saw fan gudd te bu guddee yàlla na ànd ak wér te yàlla boo tàqalikoo sutura muy sutura àdduna du jokkoo ak sutura laaxira yàlla bu suñu sutura àdduna àdduna yàggul àdduna yàggul àdduna yàggul waaye lu mu gàtt gàtt yàlla nañ fi dunde sutura waaye bu te maam Yuusufa Jóob suñu maam nee na àdduna bii képp koo xamante ni bi bëgg nga ëllëg buñ la nattalee nga feesal dell loo ñàkk tey jii danga koy muñ waaye feesal fii dell feesal fee dell yombul bokk yi yàlla yàlla doolee dimbali sëñ Ahmadou Tasrif na nga xamante ni bi loolu moo doon kàddu yi ñu sàmmonteeg jamono ji ci yemale ko foofu waaye li nga xamante ni bii moom lañ dencoon ngir bëgg koo yëkkati bari na waaye daal nga xam ni rek mbégte am na ñu ngi ñaan yàlla mi nga xamante ni bii moo sant moo santaane jokku bokk te nga def ko rafetal ko ci biir bokk gi ñi bokk yëpp a ngi lay nuyu te di la ziyaara te di la ndokkeel te di la sant di ñaan yàlla yàlla la yàlla yàggal ci kanamu mbooloo yi bi jaahi rasulillahi alayhi wa sallam hada ndawal sëriñ Moustapha mi ak mbooleem nag bokk yi nga xamante ni bii ñu ngi fi ñëpp di ay bokk jullit mbaax yëkkati leen ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla bu tànk yi neen yàlla nañ fi jële ngërëmal yàlla bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu lii nag adiya ju néew la joo xamante ni bii moo jóge ci waa kër ma mayib ñu ziyaara la ko dimbalee la ko ci gan ñi nga xamante ne bi ñoom ngay dalal tey wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk yi wax ci gémmiñ lay bàyyi koo waaye ci xol la jëm waaye nag nopp fa lay jaar lii mooy dokk ak bokk dafa am ñaari gone yu gaaw yoo xam ne duñu sànq ab yónni duñu ko wàññi te ku ko topp ko nekk sa mbokk yàqu mooy kan wéesu ak Orange ak ñu mel ne ñoom képp ku leen di yónni boo xewlee da nga bëri enveloppe waaye doo bëri nit bokk ñetti cër ko ab tànk ab làmmiñ akub loxo jërëjëf kàddu yi rafet waaye délégation Serigne Mbacké Madina moom Cheikh Modou Moustapha Bassirou général Mame Sokhna Diarra ñëw na ànd ak bokk yëpp te xam ne amuñu lu ñu njabootu Cheikh Diène soxna moomee nga ne toog moom Serigne Mamour Dendey moom sëñ Modou Xabaan moom sëñ Ma Ndumbe moom Seyed Mati Ndaw moom Seyed soxna Bousso moom sëñ Mbacké Maram soxna moomi moom soxna Asukan moom soxna matu moom soxna matu moom sëñ jëri waaraan moom sëriñ baara mi ma gën a léeg ñëpp sëriñ sooy bu la bàyyim tudd bokk dayem Cheikh Abdoulaat soxna mare ma jaxat soxna faati jaxat soxna jëng si la libaas joor si la libaas fat si la libaas libaas mu paati du ma jëg maam jaay sin ba cam ñil ko mu daan sugu daal fa gomaay ba yàlla yàgg tëgg na wér rek soxna Bali Muntaxa sëriñ Seexuna Saaxo yow yaa engagé sëriñ Seexuna Saaxo yaa engagé dama ne xel ba tee sàkkaw da ciy dëru yaa jàpp sëriñ amul tasrif yaa ko sagal yaa ko bëgg yaa ko fang yaa ko jàppale nii nga def dama ne xaru ak ma xaru ak maye loo ciy waaj doo ko def Serigne Cheikhouna Sakho ngi di toog yàlla yàlla guddati waaye nag ah Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Soubeyru moom maam Thierno waaye nag Cheikh Modou Moussa Mba Ndiaye al Karim ah Modou soxna bu sumi ci baari bali si bu rik sëñ Mbacke maaram xam soxna moom yi kii ma takk Patek Philippe la Patek Philippe la Serigne Bara ma ko jox ça coûte 3 millions de francs CFA Serigne Bara lu ne may na ma Serigne Moustapha Ndiaye Al Daar Assane sa maam Serigne Touba na lu ko góor yàlla jiitoo lu neex borom bi mu koy def la waaye lu góor di liggéey Serigne Gass Khady Guèye Mbacké Balla maa ngi lay siyaar maa ngi seen sama xarit il m'est ami que est à peine arrivé à Oustaz Modou Fall Oustaz ti diamo benvenuto il mio caro